internetu Activision ginnaaw bi ñu leen di yoo ci mercredi 21 août 2019 ñu ñëw ak yéen ci li gën a fës ci xibaar yi ñu dooree ak Mamadou Lamine Diallo moom mi nga xamante ni nii daa xëyee rek euh, daanaka rek nee na politique bu salte bi di président Sall di ko politiquer nee na nag moom deful lu dul jël opposant yi daal di leen di rayee rek ci liste électorale bi daanaka rek loolu mooy mbébétam ma ngay ñëw ca pétrole bi nga xamante ne ni jëloon na ko signé ko benn dëkk daal di koy jox waa te xamoon na ni loolu mu doon def jaarul yoon nee nañ nag daanaka rek lépp lu muy def rek rien que rek pour politique bu salte la dañuy wéyal ba tey ak kii di Ibrahim Seck bu Forum Civil moom nag daanaka ma ngay ñëw ci amine bi nga xamante ne ni première dame ñi ngi koy financé euh, ñi nga xamante ne ni ci réew mi la nee na nag daanaka gis nañ blanchiment capitaux yi ak financement terrorisme bi loolu la Ibrahim Seck wax ci journal yi dañuy wéyal ba tey ak Karim Wade moom mi nga xamante ne ni dafa créé mini gouvernement gouvernement am daanaka rek ma ngi ko dippee génération du congrès moom nag daanaka rek loolu ba mu amee kii di Saara Sall moom dafa démissionné Abdoulaye wadd nag daal di dàkk kii di Aziz Diop ak Cheikh Seck euh, ñoom nag daanaka rek ñi ngay laajte ndax Omar Sarr dina am charisme pour jiite ñi nga xamante ne nii dañoo fipp ca boobu le parti euh, kii di nag pétrole beeg gaz bi ba tey dañ ciy wëyal mouvement aar lu ñu bokk ñoom nag daanaka rek ña ngay annoncé sénégalais yi danañu yëngalaat ndaxte duñu bàyyi benn yoon combat bi nga xamante ne nii ñi ngi koy amal dañuy wéyal ba tey ak fee ca Thiès kii di ma fàtti mbay ma gaañu woon foofu noonu te ñuy wax ni dañ ko rey autopsie ba nag daanaka rek hôpital bu Dantec génne nañ ko ñoom nag daanaka rek nee nañu traumatisme la am ci boobule accident nee nañ nag am na fracture yu bëri yoo xamante ne ni am na am na ko ci ña ngay wax sax ne hémorragie interne ak externe la boobule ak accident ba waral kooku di Mafati Mbaye euh, mu gaañu ci ñu ne ñu ngay wax ne nag El Capo moom daanaka rekk autopsie ba daf ko seetal wecc nee nañ nag daanaka rekk bu yeboo ñu daal di génne xel ni euh, El Capo moo rey kii di ma Mafati mbay euh, kii di ma Mafati mbay nag moom nag ma ngay ñaawlu boobu le mbir nee na nag dina porter plainte contre X drogue ba ñu saisiroon ca pooru Ndakaaru gisati nañu kenn koo xamante ne nii jàpp nañ ko muy Assane Dia moom nag démb lañ ko jàpp ñoom nag daanaka rek nee nañ ci benn France nabe bu drogue boobu nga xamante ne ni ñu ngi koy wax boobu ba léegi ci lañ ko jàppee dañuy wéyal ba tey boulangerie yi nga xamante ne ni ñoo nekk ci Sénégal ñoom nag ña ngay wax ni danañu amal ak grève bu toll ci ñetti fan le 27 ak 28 29 bii di ñëw daanaka rek dinañ amal seen grève di naqarlu seen yi nga xamante ne ni ñu ngi koy euh, doxalee ci boulangerie bi dañuy wéyal ba tey ak pont Émile Badiane ba nekk te jugeen Ziguinchor ñoom nag daanaka rek nee nañu nag pont ba boo moytuwul dana daanu ndax yàggaay ba mu yàgg dañuy terminer ak sport sport ñëw ak ñun ci trois finales yi ñi am ci at bi daanaka ñu bëree ña nga cay àddu kii di Alassane Dia moom nee na nag mënta comprendre benn yoon saay saay rek suñu jëlee deuxième ñuy jubilé di wax ne que rek mel ni ku gagné kii di Ndofène Fall moom nag nee na moom question bi muy laaj nee na nag pourquoi nag combat yi nga xamante ñu koy gagné te mënuñu gagné benn yoon ci wàllum euh, euh, football beeg ak lii di basket bi du Dieng ñu koy wax pa bi moom nag nee na dafa fatigué comprendre benn yoon lu tax rek ñu nekk ci deuxième position bi loolu lañ leen indiloon ci li gën a fës ci xibaar yi di leen jox dig dajee ba suba jàmm incha allah.